asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sante yàlla jiitu ci yonent bi sallallahu wa sallam di feddali sunu jaayante bi na naa Cheikh Ahmadul Xadim te ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñoo ngi siyaare kilifa yëpp te siyaare suñu bokk taalibe yi tey ñëw ak yéen ci commission de finance sous commission sociale de fonds Sourier 2021 ni ko Touba ci kanam baaxoo defee muy laaj lu ñu am def ko fu ñu xam kon ñu ñëw ak yéen li nga xam ne moo dugg ci compte Touba kanam te mooy laaj lu ñu am ñu njëkkee ci biir réew mi bu ñu ñëwee ci Touba ci mois de juillet bi dugal nañ ci compte Touba ci kanam cinquante cinquante et un millions huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cent Mbacké Bawol cent cent trois million neuf cent mille cinq quatre-vingt-dix-neuf plateforme Wave 12 millions 4 989 000 plateforme Orange Money 4 millions 554 mille 096 Dakar 13 millions 554 mille 100 Kayar 610 mille Pout 65 mille Rufisque Guy Mouride 35 mille Rufisque Quai de Pêche 204 mille 200 Bambey 80 mille Diourbel un million Thiès un million cent Daayira Babul Ayaadi Agnam cent cinquante mille Goudiri Goudiri trois cent dix mille Soal cinq cent vingt trois mille Kaolack trois million deux cent quatre vingt dix mille Kébémer un million trois cent Kédougou huit cent quarante trois mille Kolda trois cent trente sept mille Louga deux millions deux cent quarante neuf mille neuf cent Mbour trois millions trois cent trois mille Xombal quatre cent vingt cinq mille Korosma Diaroumbé quatre vingt mille département Dagana six cent trente cinq mille Saint-Louis six cent mille tournée bi nga xam ne massification mi ngi ko doon def ngir yaatal liggéey bi ci biir réew mi deux millions trois cent quatorze mille lañ ci amee Ngaye trois cent quinze mille Sanc sanc Bambey soixante douze mille Darul Muxti soixante mille Ndangalma vingt cinq mille Casamance quatre cent soixante quinze mille jaayante yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci ku ñuy wax sëñ Abdou Lahad docteur sëñ Abdou Lahad Faye ak docteur sëñ Xaadim Mbakke un vingt mille jaayante bi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëñ Souleymane Ndiaye sëñ Souleymane Diagne te mu jóge woon ci sonne bi nga xam ne Touba Ca Kanam doon na ko defar def ca Ndakaaru ngir yaatal liggéey bi deux millions Fatick soixante dix huit mille Koungheul quatre-vingt mille euh, li nga xam ne banque Otar moo ko dugal ci compte Touba Ca Kanam bi cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante versement anonyme mooy ñi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek dugal seen i ci compte banque Touba Ca Kanam un million neuf cent vingt-neuf mille neuf cent quarante-cinq li nga xam ne nii moom lañ laaj ci biir dëkk bi te muy laaj lu ñu am bi muy li nga xam ne moom lañ am ci biir réew mi boo ko boolee ci mois de juillet li Touba Kanam am ci weer wi te mu jugee ci biir réew mi mi ngi doon cent onze millions six cent sept mille neuf cent quatre vingt sept cent onze million six cent sept mille neuf cent quatre vingt sept retour yi nga xam ne am na muy décaissement yoo xam ne Touba Ca Kanam da koo defoon am lu mu doon liggéey lu mu am lu des ñu si delloosiwaat ko ci compte yi ci daara yi nga xam ne moom lañ doon def post première paire bi ci weer wi ñu weer weer wi ñu nekk li dellusiwaat ci compte Touba ci kanam yi mi ngi doon vingt deux mille sept cent ci mbaar mi nga xam ne moom lañu doon def ci poste santé Darou Khadim ginnaaw bu ñu defee fere ya dese woon desoon na quarante mille boo boolee ñaar yooyu muy soixante soixante deux mille sept cent bu ngeen demee ci corniche bi lampadaire yi nga xam ne tubaa ci kanam moo ngi ko fi doon def mu tàmbalee ci poste de contrôle bi jëm ba ca corniche Daara Jolof te ñu wax ne képp ku ci la yàq benn lampe da nga da ko da nga fay loo xam ne ni moom la ñuy defaraate lamp ba ndax alali askan wi la am na ko ci jot a daaneel benn poto fayoon na deux cent deux cent mille francs ñu ñëw ci bitim réew ñu njëkkee Amérique muy son Amérique irrigué cent mille francs États-Unis quatre millions deux cent cinquante sept mille cinq cent Argentine sept cent cinquante mille boo boolee mbooleem li nga xam ne moo bàyyi ko ci Amérique muy son Amérique cinq millions cent sept mille cinq cent cinq millions cent sept mille cinq cent bu ñëwee ci zone Europe ñu tàmbalee ci Italie itali dugal na ci compte Touba ci kanam Touba di Soulier dix millions huit cent cinq mille trois cent vingt trois Angleterre huit cent un mille Portugal deux cent quatre vingt quinze mille Russie cent dix neuf mille six cent France un million cent trente quatre mille neuf cent vingt deux Espagne deux millions quatre cent neuf mille cinq cent mboolem li nga xam ne moo bàyyi ko ci Europe dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de juillet mi ngi doon quinze million cinq cent soixante cinq mille trois cent soixante six quinze millions cinq cent soixante cinq mille trois cent soixante six ñu ñëw ci zone Afrique mooy réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique Gabon cinq cent cinquante cinq cent cinquante six mille Mali un million cinq cent Côte d'Ivoire un million cent Afrique du Sud sept cent cinq mille Guinée Bissau huit cent quarante trois mille boo boolee mbooleem li nga xam ne moom la Touba ca mu dugg ci compte Touba ca kanam bàyyi ko Afrique ci mois de juillet deux mille vingt et un quatre millions sept cent trente quatre mille quatre millions cent trente quatre mille kon boo boolee li nga xam ne moo bàyyi ci biir réew mi ak li nga xam ne moo bàyyi ko ci bitim réew dugg ci compte Touba ca kanam ci mois de juillet deux mille vingt et un mi ngi doon cent 137 millions 277 mille cent 137 millions 277 mille 553 bu nu ñëwee ci def ko fu ñu xam muy décaissement yi nga xam ne Touba Ca Kanam def na ko ci ay dépenses ci weeru mois de juillet ñu njëkkee chantier bi nga xam ne Touba Ca Kanam am na ko ci université bi ndax bu ngeen fàttalikoo Touba Ca Kanam jëloon na fa batiment boo xam ne mu ngi doon coûter 800 millions ci liggéey yi nga xam ne moom moom lañ ciy def weer wi dugal nañ ci neuf million soixante-trois mille deux cents bu demee ci poste santé Darul Xadim mu bokk ci ñetti poste santé yi nga xam ne benn ci poste ñetti poste santé yi nga xam ne moom lañ doon tijji ci weer wi ñu génn te am liggéey yu ñu fa doon defaat muy ay caméra surveillance yu ñu fa doon monté ak wàllu ministère ak nettoyage nettoyage yu demee noonu defaat nañ ci un million neuf cent trois mille huit cent cinquante bu ñëwee ci poste santé Ndaam mu bokk ci poste santé yi nga xam ne Touba Ca Kanam mi ngi koy liggéey te bientôt dana pare def nañ ci weer wi mois de juillet cinq million cinq cent soixante six mille cinq millions cinq cent soixante seize mille cinq millions cinq cent soixante seize mille poste santé Touba Njaareem moom tamit bokk ci poste santé yi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy liggéey te diir bu gàtt mën dana pare incha allah def nañ ci weer wi million six cent quatre vingt trois mille bu ñëwee ci opération defar yoon yi ñu koy wax ODY assainissement bi nga xam ne Touba ci kanam tànnoon na lenn ci ay points ci dëkk bi te gis ngeen ne points yi nga xam ne pare na ci yëpp gisuñu leen ci benn taataa am na ci liggéey yoo xam ne dafa desoon nag ci yeneen chantier lu mel ne Kër Sëñ Ñaan Kër Ñang ak yeneen yu mel ne moom ci biir weer wi def nañ ca million cent millions 818 mille 8 francs cent millions 818 mille 8 francs bu ñëwee ci opération sëkk yoon yi ñu koy wax OSY ndax xam ngeen ne màggal gaa ngi dërmali ci ci biir nawet lañu nekk am na ñoo xam ne mënees naa jaar ci tëli bi waaye ngir mu gën a gaaw ñu ci bëri ci dañuy tàmm beddi suuf yi beddi suuf yooyu tamit gis ngeen ne dafa taa Touba Ca Kanam taxaw ngir sëkk ko ngir gan ñi mën a jàll ci jàmm te ñu am benn jafe-jafe sëkk boobu nag tàmbali na ko ci biir weeru mois de juillet bi defekul na ci million 13 millions 125 mille adduction d'eau muy quartier yi nga xam ne dañuy manqué am ndox te Touba ci kanam baaxoo leen koo yóbbal ci biir mois de juillet bi 2021 yóbbu nañ fa lu tolloog 384 000 ci ay teewoo ak yu ni mel. commission sociale ci tabaski gi ci ndimbal yooyu nga xam ne moom lañ baaxoo jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te soxlawoo ko jàppale gi nga xam ne Touba ci kanam defoon na ko def dépassé na ci lu tolloog 10 millions. commission organisation ci poste de santé yi nga xam ne moom lañ doon tijji ak pose première fair yi nga xam ne nii moo moo soxaloon daara yi ak daara modèle boobu nga xam ne Touba ca kanam mi dépassé nañ ci un million trois cent trente trois mille sanc sanc base ba muy ba base 3S bi nga xam ne nii moom la Touba ca kanam di defar ngir installé fa ay machines yoo xam ne nii day defar ay pawas ak ay briques am na liggéey yuñ fay def nag ci weeru mois de juillet 2021 jot nañ faa dépassé lu tolloog douze million six cent trois commission communication mu bokk ci commission yi nga xam ne nii mooy yaatal liggéeyu Touba ci Kanam ngir nit ñi mën koo dégg ak mën koo gis ci mois de juillet bi bari na ci ay liggéey yuñ def bokk na ci ay silé yuñ commandé woon am am na luñ ca amaas ak yeneen communication yi nga xam ne moom lañ doon def dépassé nañ ci cinq million six cent douze mille cinq cent bu ñëwee ci commission logistique nga xam ne ñoo yor matériel Touba ci Kanam yi wàllu carburant yeeg carburant yeeg machine électrogène bu ñu jëndoon ak ak machine pompage yi nga xam ne ñu ngi koy defar ak yooyu yëpp ci jamonoy nawet bii di mois de juillet deux mille vingt et un dépassé nañ ci onze millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux cent quarante et un commission bi nga xam ne nii mooy reboisement mooy commission environnement ñi nga xam ne ñoom lañu dénk jëmbat garab yi ci weer wii di mois de juillet ci garab yi ñu doon jëmbat ak pépinière bi ngir entretenir ko ngir ñu mën koo jëfandikoo liñ ci a dépassé ngi toll ci trois millions trois cent soixante-dix mille cinq cent budget de fonctionnement mooy kees gi nga xam ne Touba Ca Kanam baaxoon na ko génne weer bu nekk muy un million ngir dépasse yu yu ndaw ndawaat yi nga xam ne day am ci biir liggéey bi jot nañ koo génne ñetti yoon ci weer yi muy trois millions lu jëm ci commission leeral mooy commission bi nga xam ne ni moo yor wàllu leeraayu dëkk bi am na liggéey yu am solo yu ñuy def ci corniche bi entreprise bi ko gañe woon décompte bi nga xam ne war nañ ko koo defal ak câblage yi xam ne ñoom lañu waroon di jënd ak yu noonu ci biir weer wi nañ ci lu tolloog million 4 millions 643 mille 200. Euh, bu ñëwee ci total salaire charge fixe yi te mooy technicien yeeg location bi nga xam ne moom la ñuy fay ci seesu Touba ci kanam beeg ñu nekk ci terrain beeg ñu nekk ci bureau yi yëpp bu ñu ko boolee mi ngi doon 7 million 12 mille cent commission administrative am na fere yu ñu def ci bureau Dakar mu toll ci 14 mille francs am na tamit ay yeneen fere yoo xam ne dafa bàyyikoo ci bureau exécutif ak comité directeur. muy ay divers yu toll ci un million commission massification nga xam ne ñoom lañu dégg wàllu dem fekki ni ñi ngir yaatal liggéey bi ci café Touba yi nga xam ne moom la ñuy def ak màggal yi nga xam ne mu ngi xew ñu cay dem ak kesku yi nga xam ne ñu ngi koy defar ci mois de juillet bi fere nañ ci lu toll ci six six cent vingt sept mille bu ñëwee ci commission membre mooy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu carte rosi yi ak carte de membre yi commande bi nga xam ne defoon nañ ko ci carte carte yi ak reçu yi fere nañ ci deux millions cinq cent ci mois de juillet bi am na ay fere yu ñu defoon ci exportation ambulance bu war a jóge bitim réew ak yeneen matériel yoo xam ne moom fa war a jóge mu toll ci six millions cinq cent douze mille neuf cent commission santé ci poste santé yi nga xam ne ñu ngi ko doon tijji ak matériel informatique bi nga xam ne moom lañ fa doon def ak yu ci mois de juillet bi fere nañ ci lu tolloog huit cent deux mille fere yi nga xam ne banque yi dañu koy faral di dagg te ginnaaw bu ñu ko daggee ba noppi danañ ko delloosiwaat ci compte Touba Ca Kanam liñ ci jot dagg mi ngi doon quarante mille huit cent quatre vingt six mille huit cent quatre vingt six mille huit cent kon li nga xam ne moom la Touba Ca Kanam dépassé ci mois de juillet bi day toll ci cent soixante dix neuf millions trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt cent soixante dix neuf millions trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt cinq li nga xam ne moom la ci Touba ci kanam jot a encaissé te moo dugg ci compte Touba ci kanam yi bàyyi ko ci réew mi ak ci bitim réew mu ngi toll ci cent trente sept millions deux cent soixante dix sept mille cinq cent cinquante trois loolu nag bu fekk se li nga xam ne moo nekkoon ci compte yi ci mois de juin fin de fin mois de juin bi weesu li nekkoon ci compte kanam moo nekkoon huit cent deux millions huit cent trente deux mille sept cent quatre bu fekkee ne cent trente sept millions deux cent soixante dix sept mille sept cent cinquante trois fekk si na ko kon li nekkoon ci Touba compte Touba Ca Kanam day nekk neuf cent quarante et un millions cent dix mille trois cent sept loolu nag boo ci génnee cent soixante dix neuf millions trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt cinq lii nekk ci compte Touba Ca Kanam ci mois de juillet bi ci jeexantalu mois de juillet bi day toll ci sept cent soixante million sept cent onze mille cinq cent vingt deux sept cent soixante million sept cent onze mille cinq cent vingt deux kon ñu ngi jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo ci feeñal seen i yéene ci weer wu nekk ñaan yàlla nañu ci def ko ngërëmu sëriñ bi tey ñaaxaat tey fàttali ñi nga xam ne sañ nañ leen fàttali ñu gën a farlu ci liggéey bi di jeexale suñuy kàddu rek ci fàttaliku waat di sàkkuwaat ñaan ci mboolem kilifa yi ak suñu mbokk taalibe yi ñu gën a ñaanal sëriñ Mouhamadou Mamoun Gadiaga mi nga xam ne moo jiite woon commission finance bu Touba ci kanam def liggéey bu am solo te ni mu ko doon defee ci commission finance bi noonu la ko doon defee ci mbooleem commission Touba ci kanam bi yëpp boo ko dee tënk daal day mel ni moom addunaam li ko yitteeloon rek mooy liggéeyal sëriñ bi guddeeg bëccëg ci la nekkoon ba suñu borom def ko mu wuyu ko te mooy mujj ay kàddoom kon ñu ngi ñaan suñu borom gën koo dolli yërmande am jéggal te di ko sàkku ci mbooleem kilifa yi ak suñu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa